Assalamu alaikum, bien ñëpp duñu année, par ma voix toute l'équipe de Waha TV vous souhaite une excellente année que cette année soit pour nous tous et pour vous également une année de paix de santé de réussite de prospérité et de beaucoup de succès ma ngi leen di bu baax remercier infiniment pour cette confiance cette fidélité ak ànd bi ngeen ànd ak TV c'était juste un rêve une folie une idée Bon, xam ne daf ñu ñëw nii rek ñu toog ñu ne war nañu mën a dara ñu créer suñu chaîne YouTube Bon, ak léegi ngeen top, ñu di nous supporter c'est nous, c'est encouragement yi seen bëggeel ci ñun tax ñuy góorgóorlu ba la bonne nouvelle c'est quoi en 2018 nous avons mis en ligne suñu site web c'est-à-dire 3W Warha.tv.com. tv li ko waral lepp moy pour gën leen ay je profite de cette vidéo pour vous dire nous warxa tv que suñu ligne éditoriale moy éducation formation et une information utile parce que c'est une voie que nous avons choisie Nous ñoo taamu ni dañuy xol suñu réew li ci gëna rafet li ci gëna am solo ñu diko wané. ñun ñoo xol ñu ni suñuy site web ak suñu chaîne YouTube duñu ci wax duñu ci def dara lu dul suñu réew kanam option la choix la bu def ginnaaw yéen bi ngeen nekkee suñuy encourager conseil supporter nekk ak ñun donc ñun amuñu seen fay yéen a tax tey suñu rêve bii li nga ni folie la woon au début ñu di réaliser di gën a ba mais di gën ba di leen di 2018 jàpp leen ni dinañuy ñëw ay émission yu nga xam ne nii émission yu am solo la comme ni ngeen ko commencé seetaan gis ngeen seen émission bu bees bu tuddee la philosophie bi nga xam ne dara taxu koo jug lu dul jéem a jël leçon yooyu nga xam ni élèves terminale yi ñu ngi koy am ca école ba di leen ko taataanal di leen koy expliquer ba mu gën a leer ci seen bopp ndaxte kat mooy suñu appui mooy suñu participation ci jàngal gi ñu war a mën a jàngal suñuy ndaw yi réew ci noonu di ngeen di gis émission yi de ce genre yu gën yoo xam ne ni ci perspective boobu rek lay jëm maanaam gën a aar ndaw ñi gën leen a conseil gën leen a jox une bonne information suñu suñu xeex mooy qu'il une alternative dañ ni du réseaux sociaux internet il n'y a pas que du négatif de nous, on est engagé pour y mettre du positif donc nous vous remercions infiniment je vous continuer à nous suivre sur la chaîne YouTube mais également sur notre site web www.walhatv.com di TV.com' notre but c'est de vous rapprocher de nous rapprocher de l'essentiel merci infiniment merci moi personnellement je dis merci à tous mes amis Facebook merci à toutes ces personnes qui nous suivent qui nous suivent de très près à toutes ces personnes qui nous ont qui ñu nous di merci infiniment Nous, pour également représenter Pikine parce que nous sommes de la banlieue moi je suis né à Tivaouane mais Pikine l'a magué et je suis très fier. bonne et heureuse année que 2018 soit pour nous tous une année de succès et beaucoup de bonnes choses merci et surtout nous restons à l'écoute. Commentez nos vidéos, commentez sur le site, mais également écrivez-nous sur nos pages YouTube. Merci et bonne heureuse année.